moo mën a jaar am na lu ma ci lañ bëtu bu baax ci préparation yi ñoom ñaar mais dinaa ñëw ci Boy Niang Reug bu baax am na lu ma ci bëgg a wax nag mais loolu dama koy bàyyil spécial ba su boppam mais dama bëgg a ñëw ci diggante Modou Lo Siteu rek daal dugal ko su bakar yi Modou Lo dafa am benn combat la boo xam nii maa ngi dégg polémique bi commencé naa yeewu polémique bi commencé naa yeewu ci diggante Modou Lo li ma leen waxoon bërki démb laa leen waxaat tay mooy Siteu sa digganteeg Modou Lo sa digganteeg Modou pour man Fadam ma mën a nangu man ci niveau professionnel rek nga ma ko mën a woon. Siteu sa diggante ak Modou Lo le roi des arènes laa lay wax sa diggante ak Modou Lo roi des arènes. pour nga won ma ci lu ma ne waaw waaw man fa Fadam lu ma ne waaw mooy mu ngi basé wu ci yow Siteu nga won ma ko ci niveau entraitement lay xaar Siteu yaa ngi bëri koo xam ne nii bëri naag génération yëpp dama lay wan lii ma lay wax dama bëgg képp ku supporter Siteu nga dégg fi may waxee li may wax du neex ci Siteu li may wax ci combat bi du neex ci Siteu ndax Siteu moo soxla lu ñëpp soxla te ay morom bañ ko dañoo échec te dara boo ko soxlaa say morom échec ci da ngay xool fa ñu nga jaar fa nga moytu loolu pour mën a réussir fañ mën a jaar déglu baax li ma lay wax. Siteu Modou Lo dañ koo booleeg Eumeu Sène Eumeu seen mën a bëri lool indi doole lool waaye indiwul stratégie Siteu Modou dañ ko njëkk a booleeg Eumeu Sène Eumeu Sène indi doole lool indi mën a bari lool indi sañ-sañ lool waaye indiwul stratégie Modou ñëw gérer ko ci bëri moom contre kele di ko dur ci flexible lu mu bëri mu yàq lu mu bëri mu yàq lu mu bëri mu yàq ba Eumeu Sène noyé mu naq ko daan ko dem ñibbi. Siteu ñu boolewaat ak Modou ak Eumeu Sène dama koy bref rek mu gaaw. Eumeu Sène daal di changé méthode Siteu Modou Lô demaat fa mu nekkoon ci beneen fas mooy ne Eumeu Sène fa nga jëm si du fa jëm si mooy dama lay teel a éliminé ci premier carton yi dóor Eumeu seen mu daanu te billaahi kuy takk ngemb Sénégal Eumeu Sène la dàq bëri te billaahi boo jëloon Eumeu seen boole ko Modou ci géej ñu daje du demee noonu Eumeu Sène jóge Mbaaw Modou Lo jóge Parcelles ñu dem ba Mali bu ñoom ñaa ngi dégg takk seen contact fu Modou Lo daanee ñaar Eumeu Sène day daan ñett dama lay wanal ne la Modou la góor mënta natt ba ne fii la toll déglu bu baax li ma lay wax ñu jël ñaar ñoo bokkal génération di Ama ak Boy Niang Ama Baldé jël kombaam ak ki nga xam ne ni tey jii mooy Modou Lo indi communication boo xam ne dafa yaakaar ne mu ngi lay nekk ci géew bu mooyam Modou Lo dem jàngi lan mooy yàq làmb Ama Baldé Modou daa taxaw ci woon lan mooy yàq làmb Ama mooy arbitre bi na Ama nee na bërët ci premier énergie ci bëgg-bëgg ca sañ ba Modou Lo arrière Ama yàq énergie yàq la ko nekkoon ca mental ba mooy Ama Baldé bërit ga Modou leen du ma fa fekk mu jaral ma mu jël ay sacrifice arrière Ama Baldé la nekkoon ca moom yàqu ma indi la ma war a indi te lii ma lay wax nii Siteu amul ku dàq bari Ama Baldé ci biir géew mën nga ko dàq bëri ci lépp nag waaye biir géew biir làng amul kenn ku ci mën Ama Baldé te Modou Lo ci ay fraction seconde la yàq stratégie Ama Baldé Siteu ma ñëw ci le technicien de Boy Niang numéro 2 Siteu dama bëgg nga seetaan ñaari combat yi rawatina bu Boy Niang Siteu Boy Niang numéro 2 def préparation Modou Lo lu ëpp cinq mois ci nan lay réagir rek Modou ci biir géew ba plan A beeg plan B beeg yëpp échec baax baax def nii si te Modou Lo arbitre siffle diggante mu boo ñan mu cadré boo Niang boo Niang ëmb Modou Lo xoolal baax li ma lay wax Boy Niang ëmb Modou Lo xam ne boo Niang nii mu taxawee arrangé wu ma Modou génn ci surface su Boy Niang cokkaas Boy Niang ku Boy Niang na bërit Modou Lo arrière Boy Niang na bërit jóg ci bëritu Boy Niang boobu mu duggee ci combat bi Modou Lo daal di dajeeg Boy Niang daal di jël tànk bi nekkoon ci kanam daal di koy ëmbee tànk Boy Niang mooy Modou li mu bëggoon ci diggante moom Boy Niang mooy saa yi may bëreeg Boy Niang ci côté droite ba sama tànk bi may jiital di ëmb tànk Boy Niang bi doom jarul yuux bëreeg Boy ñaa ne Boy Niang mënuma koo daan fekk sama tànk ëmb tànkam te pour loolu am damay bàyyi ba combat bi déclenché ma indi loolu ci biir combat bi mooy Boy Niang saa yu duggee ci combat bi man Modou Lo ci laa indi stratégie bu mooy bëreeg Boy Niang waaye fekk Modou Boy Niang déclenché wul mënumaa indi stratégie bu loolu amee bu loolu amee Siteu lan nga war a taxawee ci sa diggante ak Modou Lo c'est la première fois li ma lay njëkk laaj te làmb du la ko pardonné mooy état de forme li ko dalee ci sa weewu tànk ba ci sa bopp amul dara luñ ci war a mën a nattable ci miskil ak doole amul duñu la ko jéggal sa diggante Modou Lo li ko dalee ci sa tànk we ba ci sa karawu bopp fu ñu xool miskil dafa war a génn Siteu kaw gi ta gën a pare suuf gi suuf gi war warta gën a pare kaw gi Siteu Modou Lo mi ngay bëreel bëri woo mbër professionnel ngay bëreel ak mbër professionnel ngay te chaque jour Siteu lii maa la koy wax muutloo Lo jàngul num la daanee mu ngi jàngi ji num la juumloowee Siteu Modou Lo jàngul num la daane dafa jàngi ji nan la lay juumloowee te saa yu xëyee mu ngi xool nan laay juumloo Siteu ki loolu lay taxaw Siteu combat bi ci benn cinq minutes trois minutes deux minutes yu njëkk yi war ngaa taxawee ñetti stratégie yu bokkul surtout sa diggante Modou Lo war ngaa taxawee ñetti stratégie yu bokkul surtout sa digganteeg Modou Lo war ngaa taxawee ñetti stratégie yu bokkul mooy da ngay plan A ak plan B ak plan C te ñett yëpp bu ci nekk waru laa sori nu Modou Lo réagir am na stratégie boo ci war a indi ndax ki ngay bëreel lam lay indil ci géebu la la ko indi te lu bees tàq lay doon ci yow. moo tax si te côté entraînement benn fa ma la waxoon laa lay waxaat mooy si te du ma la ko jéggal si te du ma la jéggal ci niveau entraînement. surtout côté niveau sport physique musculation état de forme doole fraîcheur da ngaa indi woon contre Lac de Guiers ma 2 lu ma jooyloo mais loolu bëgguma ko gis la nga indi woon contre Lac de Guiers 2 da ko war a doubler deux fois deux fois nga ko war a indi tëwu la surtout Modou Lo état de forme yi mu indi woon contre Ama Baldé Boy Niang du koy doubler deux fois Siteu état de du ñu ci jéggal dañ koo soxla nga wan ñu loo xam ne nii bu ñu jàkkaarloo ak yow dinañu dar gémmiñ loolu mu ngi ci yow te da ko war a indi ay coonaa koy maye te coono yooyu war nga ko mën a teg sa bopp mu ñëw Siteu côté xeex jàng ci loo xam ne nii lu kenn warta tegg ci sa loxo Siteu côté xex dama nga jangi ci lo xam ni lo musta am dama nga lo. lo amuton ci sa digënté ak c'est te bëre ba ak xex ba nga japp fexé nak bam bokku nday ak bay bu leen tàggale Siteu nan nga war a ak mudlo c'est te point bii dinaa la koy laaj lu bari Siteu noo war a taxawee ak Modou Lo noo war a taxawee ak Modou Lo jàkkaarlu ak moom Siteu sa combat ak Modou Lo position taxawaay ba am na ki solo trop Siteu ki ngay bëreel li muy préparé mu koy préparé ci biir géewu làmb la koy préparé Siteu ki ngay bëreel li ngay préparé li nga xam ne nii mooy meilleure stratégie ci biir géew bi la koy programmer te mucc ci ak a jafe moo tax Siteu nan ngay taxawee pour cadrer Modou Lo pour xeex ba du ko arranger pour bëri ba du ko arranger. li may ñëw rek balaa ma daaneel dugal alaaji Poobar Saaxo mooy sita yaa ngi bëri combat boo xam ne nii man combat bu ma gëm ne boo mën a am dara nga Siteu sa combat ak Modou Lo boo mën a gañe Modou Lo la waaye par stratégie ban ngay indi pour mën ko gañe Siteu ñett yii bu ci manqué doo daan Modou ñett yii ma lay limal saa yoo tiitee ci sa doole saa yoo tiitee na yow Siteu am nga doole wala amoo doole doo daan Modou Lo benn saa yoo indiwu stratégie xeex bu ànd ak bëre bu compact nekk benn mooy xeex ba ak bëre ba mu wu nekk benn jàppale doo daan Modou Lo Siteu ñetti vidéo yi ñeenti vidéo yi dama nga seetaani ko boo demee ba sa combat des une semaine deux semaines nga dem seetaani compa bi ma lay tegal Modou Lo Eumeu ñaari yi mu daan Modou Lo Eumeu yëpp dama ko di ko seetaan lu bari Boy Niang Ama Baldé Modou si tëddee ko seetaan lu baree baree bari bari bëri am na lu ci nekk loo ne kenn mënu koo wax yow yaa koy dem seetaan ba trouvé ko sa bopp bu ñu ba sa combat ak Modou ay deux semaines trois semaines combat ak Balla Gaye numéro deux ñaari yoon yëpp dama ko seetaani ko foofu nag ngay xame lu tax mox la rapidité bi ak bëri bi ak xeex bi dañoo war a bokk ndey ak bàyyi. Siteu Modou Lo mooy le roi des arènes mooy le roi des arènes bu confirmé ne moom le roi des arènes la ndax daan nekk roi de arènes xool xale yi gën a tëkki làmb mu bool leen duma daan kenn mayu ko loxo ci dara ci làmbam bi muy déclenché contre laay bay ba léegi ngar ndéem rek lay bëre mu won ñu mbër ba Sénégalais yëpp teg ni kii mbër la mu jël mbubu mbër teg ko ne le indil ñu niveau professionnel. dafa jot lim mu loo wane ci làmb ku bëgg a daan loolu da dem jàngi lan la Modou Lo wane ci làmb nga dem jàng loolu ba mokkal ko indi leneen lu bokkut ak loolu mooy si te première man combat bi ba ñu sumal combat bi doo dégg ci man loo neex xamna ne mak buur ay won nga ñu jamm gën waye damay ragal sax do duñ fa jaar ndax lima gis ni tan naan wax ki sa digënté ak ah man fiteer yi dinañ jog di ci të mak buur liñ bëgg wax dinañ ko wax de té ngeen ñu ay jamm gën nak waye damay ragal fora ci ndawal la ngeen ay waale ñuko ko ndax mak bur ah, bëgg nañoo ndekkee ci fora waye dama ragal do dañ koy mujjé bay bu ko bi jall waye li am solo bam solo rek ci bàyyil xel combat bi nga am bàyyil xel komba bi nga am bu baax a baax a baax a baax a baax bàyyil xel combat bi nga am ki ngay bëreel kenn mënu koo natt ci làmb Siteu ki ngay bëreel kenn mënu koo natt ki ngay bëreel ndaanaan la ki ngay bëreel bëri na fi combat bu diire daan ko bëri na fi combat bu gaaw daan ko wër nañ ko fi ndombo mu daan bër jël nañu tànk mu daan bër jël na fi ngeen mu mbër daan ko songu na fi mbër daan ko Siteu Modou Lo dictionnaire la ci làmb tey jii fii may wax ak yow nii fii may wax ak yow bu fekkoon ne làmb football la guddi yi ñu toll guddi yu ñu toll bu tubaab yi ñëwee Sénégal bu ñuy jënd Modou Lo la ñuy jënd loolu nag du neex chinois ay waa Kër Faw Génie loolu du leen neex bu fekkoon ne làmb football la guddi yi ñu toll. bu tubaab yi déclaré bitim réew ñëw di jënd si athlète bi Modou Lo la ñuy jënd xam nga lu waral loolu mooy qualité yi ak sérieux bi nekk ci moom ak preuve ba nekk ndaanaan mën géew du ragal ragalul coow lu combat gën a tàng mu gën a bëgg loolu ndaam Siré le grand champion le roi des arènes yi kontaan naa ci ñëpp Siteu du sedd ba ñu suba le combat bi non farma buuru la ko wax combat bi moy ci côté mod Lo bëgg wax dañ koy wax ci côté Siteu lu bëgg wax dañ koy wax digënté amabal Baldé Franc lu ci côté Ama Baldé bëgg wax dañ koy wax ci côté Franc lu bëgg wax dañ koy wax Fawzeyni nak lolou du neex ci waay waaye ci katunu yalla contane nañ ci ñëpp ñu ngi ñaanal amateur yëpp jamm di leen ñaanal sutura ñu dugal alaaji bakari saxo mu xane ni mu ngi ci ligne bi ndaanaan bi ñu ngi koy ñaanal jamm bu baax bu ñu paré dogu duggal gaay yi ziar nañu ñëpp bu fekkee wax nañ fi benn baat koy jéggalu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ah